mbokk yi déglu leen dama leen a bëggoon a boole ak ki nga xam ni mooy faj-fajub cosaan ci ay produits yoo xam ne lépp mi ngi bàyyeekoo ci gàncax gi maanaam lépp di ay plante ci lay jaare faj la ah mbokk yi kooku mooy cheikh borom produit yu baax yi yow mi góor wala ngay jigéen koo mënti doon nga am feebar bu la jaaxal ñëwal setti cheikh borom produit yu baax yi nga am tànk yu ruux wala tànk yu metti seet sil cheikh borom produits yu baax yi pajum cheikh soo koy jëfandikoo di gis résultat ndoxum city hémorroïde prostate naka noonu ngay am chute de cheveux manam sa karaw di daanu nga am leel leel bi jaaxal la lool dina la jox ay produits yoo xam ni boo ko ci defee sa karaw dina dëgër ba noppi borom leel ba leel ba dina ñëwaat saxaat karaw nga néew kàttan ñu ne góor warta néew kàttan néew kàttan ci moom tooñ la moo tax seex dina am loo xam ne bu la ko joxee sa kàttan dina gën a bëri sa doole dina gën a bëri kon cheikh borom produit bu baax yaa ngoogu nga am biir bu rëy cheikh

xoolal vacances su ñànku la kër yoro vacances su ñànku la kër yoro vacances su ñànku mu doon si ñànku nijaayu ñànku la ey sa dubi yaay tap tap sat gege gege gel gel nekkaale yoro la xoolal woote dinaa la fay. dinaa la fay. loolu indiwu ma fi tey. alhamdulilah indiwu ma fi. da ngay génn. waaw damay génn waaw. waaw baax na xam naa si kanam. <laughs> Eh, yàlla moo bari façon. waaw waaleykum yow Jumbe. waaw Fatou. na ngeen def. alhamdulilah. ah bisimilah. na ngeen def. yéen a ngi si jàmm. alhamdulilah. waaw na ngeen def. Ya dạ, con mồm, ya con mồm. Okay. mala mala ñaaxu waaw bàyyi xel kër gi de

yoro lu mu doon si ñaan ko waaw way ayoy ali baax na ci bomb saw yaram tuuti am ci solo yow di nga rey sa bopp di defal ndànk defal ndànk di nga rey sa bopp saay da ngaa fi yow yow xamoo leen kuy liggéey ak kuy fo xamoo leen ko xanaa damay léegi nag damay lor satala pas satala di ko dugal ci biir kër ku ne si biir ah ku ne si biir kër gi ka waaw foo kenn nag sat mu daa waaye daa jàpp ne la satu daa jàpp waaw xam naa lépp daa ci biir daa am gan kan jàmm waaw waaw gan la am bi may génn am na ko ma dajal mu dugg ci biir. Oh, yoro la du yoro. borom kër gi la ci boppam. boroom kër gi. maalo maalo. waaw moo moom laa dajal ci biir muy dugg. da wax la ah, kon sax ni la ko nar a jàppee pour man kenn newu fi nekk dafa dugg ci biir. Ah, waxa dugg waay. mën naa kaa war maa ci biir. satu moo dugg ci ok. maa ngi la satoo ngi ci biir borom kër gi ma daje moom bi may génn muy dugg ñii. dinañu délo kër gi ginnaw dama son ah kër gi nan kër gi gi de kër gi fi mu ci kër yi moom. su kër gi de fi mu neex na mom ko go xamante sa ah ni da nga ko jàppale kër gi moom Macky Sall moom yëgul yow Macky Sall moom le premier ministre beeg ministre de de sa de la keul yooyu noonu yëpp moom la ñuy liggéeyoo xam naa ne yi egsi wuñ fi sax suñ fi egsi woon moom dina xam dañ sib nakawaat kër goo xamante ni lu neex waay def lu neex waay def mag sa wax ci dara bàyyi noonu lekk ah ma xam ma xam moom da nga koy dénk léegi waa kër yenn kër damaa yaakaar bokk ci xanaa. xoolal vacance su ñàkku la kër la dara lu mu doon si ñaan ko. def nii def lu la neex rek tijji sa fenêtre am na yoo xam ne boo ko mënee sax saw waaw. na ngeen def sant bu nga lu ma neex si yow. ah doo moromu kenn. eh eh eh, <laughs> eh. eh Malaw. gën naa kontaan li ma kontaan taay fiil laa. taay fiil de. boo nekk ngay taay fiil di feer. jekk si taay fiil. eh kër gi am na taay fiil di feer. Malaw yow demal eh, eh taxawal lan nga doon def si biir néeg bi. yow loo doon def doo laaj eh, satul. Ah. kii dina ñëw ci moom yow laa wax yow fii nga daan ñëw laaj. waaw location. waaw lan moo la indi nga dugg si biir néeg may wax ngay génn di way. loo am ci biir. wooy wi daf may dikkal kii boo ko boo ko laajee dana la nettali. la ah. wow lan ngay def ci ah. biir. non taxawal eh eh, eh, eh, eh yaa ngi may gaañ yaa ngi may gaañ gis nga yaa ngi may gaañ yow kii lu ko jot. yaa si loolu. eh loo waxtaan dong laa def. laalu ma laalu ma dara. kan moo la wax ay wax ay si yow yow yow sa xel mi moo ñaaw. yéen tàmm ngeen ko tëju rek ngeen yaakaar yëpp càkka lay def. xoolal waxuma ak yow ah. dama ne nga man wa mala ma yow bu ma waxee sa takk ma man takkaguma léegi da ngay dem jëli ji keneen xam nga ne ba ma yow ba ma ñàkkee moo yaa nga lan la amata fu la amata fa yaa ma yóbbu ci lu neex ah moo la ci lu neex waaw waaw yow def ko lu neex yóbbu ma la yóbbu ma ko fenn day yóbbu ma ko yéen nga day yaakaar suma ku ku ak nga rek lay def laalu ma ko doon lan lan la la def lan defuma dara def maa ngi nii kay takkuma biliyaa. fóon ak lan la man lan maa téléphone. waaw yow yaram ma. ma maa loo am ci biir. loo am léegi wax ma loo am lan nga am sama kër omo seesa laa wax. ma ne lan nga am sa kër fii fayeeku bor moo fi wala indi. waaw fayeeku bor lan la ci fayeeku eh, eh, jigéen ñi. wuy ma satu salal la loo ci fayeeku waale jigéen. satu salal la laa wax satu ah? salal la. maa koy dogaan. waaw boo koy doxal man doxaanu ma ko dama doon waxtaan ak moom. nii ngay waxtaanee ah. lu tax nga buntu bi yow nag maa ngi ñëw tegal eh, seen bon. moom moo am aar boo ma takkee yëngatu. voilà léegi góor nga góor nga. góor laa kay jongu nga. ma nag. jongoo gu ma lan xaar man jongoo gu ma. Eh, léegi la jongu ñu xeex amul ma lay wax laa a commencé sawar. voilà simmeeku. moo yow. jaay ma si ruub wala ma jaay la sama. ñool ñool ayo Assane. waaw pardon. ça va. bisimilah. ah yow da ngaa yoru tey de. non bul wax ay ñii sama ndey ay safurlaay. ah déet mu samay façon doo ko doo ko lijjanti. non déglu waaw kay. non déglu rek. waaw kay dama ñëw pour def le confidentiel. dama ñëw pour def le confidentiel. dama am lu ma metti moo tax ma ñëw. su ma ñëwee nag bul fi nekk di ma wax ay wëy yaay yooyu wëy sama ndey yooyu di gën a jeexal sama xol dégg nga gisoo kii li mu def fii keroog yëg yëg nga sunu jàppante bi. kookan la. satu. satu bi yaay. daal nu mu def waxuma la bi yaay waaye satu bi bi bi la kay satu bi ñàpp konam. kon yow da nga ciy doog a jot. kii ndekete maa lew kooku nga xam ni góor wallak wallak matul sax. góor yow maala moo gën a tuuti ci yi muy def di. maala matul góor. ma ne maala moo gën a tuuti satu bi yaay bu ma doon wax li mu doon def kon musiba am li mu nekkee lépp laa xam ndax mu jeex la may du jeeg duñu nëbbunte lu mu def xam naa ko. day am far avant dama ne xoolal day dëpp di dippar ñi xaa booboo gën a dee. ok kon loo tax nga yee ma ma jëlee ko Casamance. waaw di fay fii quinze mille di ko fayal quinze mille. Ah, kon yaa oto la ñu bokk bi may jóge Casamance mu ñëw ni amul fu mu wàcce dégg nga yuróom tolloo ma ne ko ah man de fi ma nekk am na néeg nañ dem ma jëlal la di ko jog dépasse mil ni sama jabar muy dem di jël doom haram bi maa law di ko indi. di ko pat di tëddee mu xam lii tax coow meer coow lii yu bari doo ko xam man xelal ma la ko wax xelal ma araam musuma mën a ko wax ndox dama ko doon suturlu woo <laughs> ngi tëddee mu maalaw moom war na tëddee maalaw ay waay ah? ay waay ma daan tëddee man nangu ay ma nangu lool su nangoo mu tëddee mu dem jël malaw tëddee maalaw a nga maalaw bu fekkee ëmb na du xam ndax man ni ma tëddee la wala tëddee bi mu tëddee maalaw moo tax mu ëmb eh, kooku naa ci doy yaa ngi dégg kooku naa la ci doy pour ndëpp ak dippal ña xam ku jeexkan moo ko tëddee ku ko tëddeewul xam ku ko ëmbale ku ko ëmbul kooku naa la ci doy kooku moom yàlla dama xamee don la kii kii dina ñibbi. léegi nag luy sa xalaat. dina ñibbi de. luy sa xalaat. dina dellu de nga ut ci pexe waxal ak moom ci fulla fayda. du yàgg fi andi. maari mandikoo la xuma maari mandikoo. dama ni waxee rek muy yooyu yëpp boo àggee ba ca kaw dina xam ko lu muy tekki dama nga wax ak moom ci fulla ak fayda. dinaa wax ak moom. waaw looy xaar. moom dama lay avisé. jarul kaat ndax da ngay fay may fay. waaw waaye xam nga dama rek wax ak moom. dafa am xàkke. ah kon xam nga loolu. dëkkandoo kon xam nga loolu dafa am xàkke. yaa ngi dégg. loolu la loolu laa lay expliqué. dama ay tuur tey. bëgguma benn coow boo koy wax duul nag quoi ni dañ lay expliquer la ay waxi ñàpp konam yi quoi way dul ma lay expliquer nga na ma dama ay tour la wax waxi en tour homme et homme nga may wax affaire femme quoi ka tal sa kon way wala vacances bu ñànku la yoro vacances bu ñànku la yoro vacances bu ñànku la yoro vacances bu ñànku la yoro yoro lu mu doon si ñànku sax we eh. eh ana nga Satou génnal génnal kañ ngay noppaliku waaw yow ah léegi loolu moo nekk sama wax ak yow loolu nga may tontu kañ laay mu noppaliku ah lii nga may fayee lii moo nekk sa fay ak man. daa am lu ma la yoreloo. loo ma yoreel. xaw ma ko yow ñaata laa def si yow satu depuis bi ñu commencé ba léegi ñaata laa def si yow ah. dix mille francs laa njëkk def si yow première journée. loolu njëgu soow la passe passe horaire euh, euh, fële. Sédhiou Sédhiou ba Dakar. taxi boo marché foo yumbal yaa ngi dégg heure bu lu neex ma jënd yàpp ma jënd soos ma jënd borgóor nga wax ma borgóor xaw ma yaa ko tuddee borgóor demay jënd borgóor borgee rek lu ne jënd nga ko yow amoo lenn looy def lu dul jël maalaw mi nga xam ne matul góor nga di ko jël di ma ko remplacer. Eh. man ngay remplacer Malaw baaxul de. fan Gisé man maa war a àtte du yow de Malaw ni góor la am du goor maa war a àtte du yow de yow waroo foofu man maa war a àtte. da am loo si am. lu leer Malaw dama yóbbu fu nooy. nu doon yow. eh xoolal ba xam ñett nga eh, nelaw. waaw xoolal maalaw nelaw day xool dégg. day xool maalaw nelaw day xool. yow da nga fàtte bi nga wax ñeenti ngóob. ñeenti ngóob yow may ma nga naan ñeenti ngóob yi da nga koo fàtte. da nga fàtte ñeenti ngóob. xam nga loolu est-ce que fàtte nga loolu. laa wax est-ce que fàtte na dal xam nga nga doon raay noonu moom nga kan moo jeexal dootoo raay. man du ma raay bu ma raayul kenn du raay. dootoo raay da ngaa pare fii. bu ma raayul kendu du raay nga ñàpp koonam duggaat si arrière bi aw yoonu Sédhiou. dem bu ma raayul rek nga dem Sédhiou. posé wax di balaa nit ñi di la dégg. kan posé. kër gi ki ko moom. waaw maa ko téye sama loxo nii. koo di ko jox léeg fii di ko jox léeg-léeg fii. kan. moytu boo moytu yaay génn munoo ko jox fii. yaay génn jox ko fii. loo saa newu ci loolu. jox ko fii fi jox. ma ne jokko fii jokko fii boo waxee wax ju yàgg kan xam nga weer bi nga fay mi ni sama nekk da nga fàttali li nga verse maalaw mi ngi ni sama bopp la kan moo ko maalaw moo ma ko verse kër gi fi mu ne maa géré yow yaa géré waaw gis nga lenn laa lay xamal mooy lan kër gi duñu ko bokk yoro da ngay génn kër gi laa lay wax nii. Eh. kër gi duñu ko bokk. Eh, eh, lan ko kii imbécile la ah, quoi. eh kana ah, ah, foni imbécile la. nga foni mais imbécile la foni moo def fatala tay tay kana imbécile koo foni de. kii imbécile la ñaata waay moo matara ma sanaa ko de. ndekare yow paraj imbécile paraj la quoi. ni mu imbécile defe naa mu imbécile la. paraj la quoi yow paraj la quoi. waaw dogo tebe dogo tebe dogo tebe kala sa ñuulaay bu ëpp bi. ah waay kii cagal la waay. cagal la quoi. def maa mooy. lan mooy may def moom mooy lan mooy loola amee da laa mooy lala kii yëmbee siil la quoi yow man ngay mooy ba ma la wala laaj ko wax ma lala ah. palaaj la kii palaaj palaaj daf maa mooy palaaj lala loolu mooy yan kii ndeke dafay am far quoi kala ah kala satu mi waaw yow da ngay am far satu yow gorewuloo dama naan dama naan kii amu kii kii kii amu jëkkal kii nga war na am far eh xamal li ngay wax xamal li ngay wax xamal li ngay wax amu jëkkal maa ko jëlee dëkk ba indi ko fii xamal li ngay wax amu jëkkal waaw doo fi wax la dama koy waaj a takk lan la woon takka kooku comme yaa ngi waaj takka kooku yaa ngi ñëpp ko bokk jigéen foo amu jëkkal wi fi la rek ku am code ba naa connecté oh, ah. moo ñu àtte tey xool xool bëggis ba xool lim sol xool lim sol moo ñu àtte muñal. war a àtte naa dama ku neex connecté. ku neex connecté waaw kon kon maa nga wax loolu fi ma soo jëloon ci côté la ma dama ne côté ma ko wifi recharge ko nga am wifi recharge nga am wifi recharge nga am nekku fi nekku la sarga de dul fi ma sama sama yoroon code ba tey connecté naa bakk yàlla ay xoolal xam nga lan la da da ñu ma connecté ëpp ñu ma ëpp ñu woon sama woon code dama connecté jógeel fii bopp yaboy jógeel fii balaa may wax leneen jógeel fii yow nag yow nag yow nag yow pusal day wax day wax ba waay kii maa ngi dem woo xale góor ci koñ yëpp def ka lan lan alan kan la ñuy raal alan kul kul kul kul tugu dóor kalan dugg doon bu ñu paree dinaa leen wax ñu raal la yow pour lan pour lan waaw pour lan ngay woo xale góor ñu rang ko kii moom waxa ah? kii ñëpp ko bokk waaw kii yow kenn moomu ki tam kenn moomu ka kan bu doon damay woo jigéen sax ñu raal la yow takoo takaanoo takoo takaanoo eh. soo soo takul moom moo da ngay ñàpp soxoon dellu ba di nga dellu nag di nga dellu sa jaal bu ngande bi di nga dem nag. eh Satou. Eh, eh. eh, waaw. sa waaj waaye maa la mu jox pantale ma zeel foofu. kan dama la koy ma rek. man maa la koy jox yow. yow sequma yow dama lay takk. yow yow kan sapeur conquière laay lay wa xam nga sapeur conquière. pala nga ci moom laay woo ñu takkal la ay buum ba nga def kot ñu delloo la. pala pikir la sa loxo dootul jóg sa dara dootul jóg. yow sequma yow dara yow nag Satou yow. Saloum yow. xam naa li tax du ma la gis. bi ma la woo sa lëndamaay bi. sa lëndamaay bi di nga yàgg ci lëndëm. ki may fanaanoo sax doxat rek lay def foofu guddi ko affaire comme kuy tëgg ay tama ma ma ma mucc ci doxat doxat ay tama kan ngay wax loolu ñaan ko. day yendee day yendee ñaan ko ñu ñëw. bu ñëwee day tojol yi déglu leen dama leen a bëggoon a boole ak ki nga xam ni mooy faj-fajub cosaan ci ay produits yoo xam ne lépp mi ngi bàyyeekoo ci gàncax gi maanaam lépp di ay plante ci lay jaare faj la ah mbokk yi kooku mooy cheikh borom produit yu baax yi yow mi góor wala ngay jigéen koo mënti doon nga am feebar bu la jaaxal ñëwal setti cheikh borom produits yu baax yi nga am tànk yu ruux wala tànk yu metti seet sil borom produits yu baax yi pajum cheikh soo koy jëfandikoo di gis résultat ndoxum city hémorroïde prostate naka noonu ngay am chute de cheveux maanaam sa karaw di daanu nga am leel leel bi jaaxal la lool dina la jox ay produits yoo xam ni boo ko ci defee sa karaw dina dëgër ba noppi borom leel ba leel ba dina ñëwaat saxaat karaw nga néew kàttan ñu ne góor warta néew kàttan néew kàttan ci moom tooñ la moo tax seex dina am loo xam ne bu la ko joxee sa kàttan dina gën a bëri sa doole dina gën a bëri kon cheikh borom produit bu baax yaa ngoogu nga am biir bu rëy cheikh dina la jox produit yi nga xam ni moo koy dindi nga nekk jigéen bëgg ay forme yu baax Cheikh dina fexe ba nga jongama am na loo xam ne bu la ko joxee ku la romb xoolaat la yéen ñépp yéen a ngi xaar ma joxe numéro Cheikh jëlal 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94 Serigne Cheikh borom produit yu baax yi.